bisimila yéen waa Sénégal yéen waa àdduna wërngal këpp toppati leen ma ma wax leen fu yu baaxee nekk xooleen ma yi xeeti montage photo yow mi am sa anniversaire bëgg koo def ay photo affiche wala nga bëgg koo affiche ba ñëpp jot si sa photo nekk ci ñu defal la ci am mbind mu rafet nee naa la seeti ma waa Zappin TV wala yow mi am sa mariage nee la bëgg koo def photo affiche nee la seeti ma waa Zappin TV xooleen ma yi xeeti montage ba ci ay vidéo ñoom bàyyiwuñ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 chaîne bii mi ngi tudd lu xew TV li ñuy def nii lu bees la loo xamante ni si daaw ñu ko gis parce que bu ñu jëkk dañ ñaan seetaan benn série sénégalaise wala ñu am dara loo xamante ni bëgg nañ ko wax mais amuñu fu ñu ko waxee loolu moo waral ñun ñu bàyyi leen sunu numéro pour képp koo xamante ni si nii am nga dara loo bëgg a wax yaakaar ne mën na jëmale réew mi kanam mën na jariñ askan wi nga yónnee ñu ko ñu mën la ko dugalal. dem même que tamit ci série sénégalaise képp ku seetaan benn série am ci analyse analyse boo xamante ni tu penses ni soo ko waxee dina mën a jariñ ñi nga xamante ni ñu ngi lay déglu boo ñu ko yónnee ñu dugal ko loolu moo waral souvent ñuy faral di def ay commentaire di ko dugal pour nit ñi di ci déglu di ci jëlee njariñ donc li ma bëgg a leeral mooy fii lu xew TV la ñun nekkuñu Marodi TV nekkuñu Even Prod nekkuñu Pikini nekkuñu beneen chaîne. li tax na ma koy leeral souvent nit ñi dañ may envoyé message dima ma laaj maîtresse kañ lay commencé waat wala idole kañ lay tàmm leeg wala lan moo ci topp ak genre mel noonu ñun joué wuñ série bi ñi ko joué sax xamantuñ ak ñoom mais dañu créé loo xamante ni si dina leen permettre yéen ñi nga xamante ni yenn seetaan série yi wala yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci société bi am lu ngeen bëgg a jàllale te amu leen fu ngeen ko mën jàllale ngeen ñu koy yónnee ñu koy dugal affaire bi nag amul groupe képp ku am sa message bëgg ko jàllale boo ñu ko envoyé incha allah dinañ ko jàllale ñuy ñaan nag képp kuy envoyé na nga envoyé loo xam te ne ku ko déglu dina ci mën a jëlee njariñ te teg ko ci yar ak teggin loolu laa bëggoon a leeral numéro bi amul group képp kuy envoyé message rek na nga ko envoyé directement ci suñu whatsapp par vocal ñun ñu ci jotee dinañ ko jàllale ci kàttanu borom bi alors tey vidéo bi ñu leen di indil ñu ngi ko jëmale comme ni ma ko waxee woon ci début bi ci série bi ñuy woowee Idole ñu gis ni saison 7 bi commencé na alors épisode bi ñu ci njëkk a seetaan ñu gis ci ay points yu bëri yoo xamante ni si ni mën nañ ci débattre ñu amoon quelques tombes yoo xamante ne ci lañ bëggoon a def taxaw seetlu ak yéen biñ ci njëkke mooy abi ñu gis ko mu ni dafa jële biir ci viol bi nga xam ne moom lañ ko violé tey nag moom dafa jógoon taxaw pour garder doom jooju ay xaritam di ko digal ni na yàqu biir bi parce que bu doom bi juddoo bu koy gis xelam day dem ci viol bi ñu ko violé woon naam bu koy gis xelam day dem ci viol bi ñu ko violé woon mais warul tax mu mën a faat bakkan parce que du moom moo sàkk bakkan boobu ba war ko mën a faat yéen ñi nga xamante ni si ndogal dal na leen ngeen jële ci biir seen xel dem ci ngeen def avortement pour yàq biir boobu noonu xalaat leen ni du yéen yéen a sàkk doom boobu ba koy faat xalaat leen ni aussi am na ñoo xamante ni ñi ngi ci biir néegu sëy bëgg doom te mënuñu ko am yow yàlla jox la doom danga ko war a garder sante ko ko xam ni tey am na ñu ko bëgg mu xañ leen ko indi ko ci yow naam anam bi mu ñëwee neexu la sax mais xamal ni sunu borom moo la ko jox te danga ko war a mën a téye sàmm ko def lépp li war ci moom te jamono bii nii dañu gis kaay abortement dafa bëri trop am na ñoo xamante ni sax dañ koy def ba far jaare fa ñàkk seen bakkan gisuma dara lu ko fi jar yàlla sunu borom mi nga xamante ni moom moo sàkk doomu aadama bi moom rek moom moo war a jógaat pour jëlal ko boppam mais pas yow mi nga xamante ni nee nga ni ko amee neexu la kon da ngay yàq biir bi doon na loo xamante ni nit def ko war a moytu bu baax a baax parce que am na ñoo xamante ni ñoom dañ naan gàcce gi nar a am suñu àdduna yooyu noonu moo leen di jàpp ba di leen pousser à ce ñuy def lu mel noonu mais man je pense que ni tey gàcce boobu noonu mu am ci biir àdduna moo gën ëllëg nga war a taxaw ci kanamu borom bi di layoog moom bakkanu doom boobu nga reyoon loolu loolu lu mat a bàyyi xel la alors ñi ngi sensibiliser suñu bépp sër tey ak ndogal bu mën a ñëw ci yow nga jële ci biir xalaatal ni biir boobu noonu donte sàkkuwuloo ko mais sunu borom moom moo indi ndogal bi donc jëlal doom bi toppatoo ko ni nga ko war a toppatooyee te nga sóodaale ni am na ñu ko soxla te mënuñu ci am alors loolu moo nekkoon suñu premier point deuxième point bi ñu ngi ko jëmalee ci Abdou Fall instant bi mu demee ci bàmmeelu Binta toog di wax mu wax fa wax ju am solo que ni moom manqué wul dara. bu dee alal am na ko leneen lu mu bëgg am mu ngi koy am mais ñàkk xam papaam ak ni mu demee loolu moom moo ko naqari ba tax mu am comportement bi mu am nii ci film bi. kàddu yooyu nag dafa doon loo xamante ni si dafa yaatu te ku ne war na ci mën a jàngate xale tey dafay soxla am amour parental tey say waajur lu ñu mën a def ci yow bëriwul ku ko mën a def ci yow bu dee am na. donc la également ñu ngi ciy sensibiliser ñi nga xamante ni si nii dañuy jur doom di ko sànni donte demewul noonu ci kaw Abdou mais on en profite pour lancer ci benn message tey boo juree doom sànni ëllëg mën na màgg soxla tey amour bi nga xamante ni moom loo ko ay waajur ma doon jox amu ko mën na ko pousser à que muy def loo xamante ni du doon lu ko gënal sax mais day dem ba dafay nekk benn rancune boo xamante ni day nekk ci moom mu doon loo xam ne da koy pousser à ce que muy def lu te gis nañ ci cas yu bari alors doom ak nu mu mën a ñëwee doom la sunu borom moo la ko jox donc li war mooy nga toppatoo ko def li war ci moom li ci des nga bàyyi ko ci loxol boroom bi. ba tey ci biir wax jooju liñ ci mën a jàngate dégg nañ ko mu ne am na alal mën na am lépp lu mu bëgg ci àdduna bi tey ñàkk xam bi mu xam ay waajuram moom moo ko jural lii lépp. ñu mën ci jàngate ni alal neex na lool mën na faj soxla yu bari mais am na ci loo xam ne nit ki mu ngi koy dund te alal munu ko dindi ci moom am na ci yenn naqar yoo xam te ne bu nekkee ci nit alal mënu ko fa dindi te ma gis ni jamono ji ñu bëri ñu ngi daw di topp ci ginnaaw alal xool leen ci ñi nga xamante ne ñooñu jiite ni ñuy saax-saaxi alalu réew mi ak ñeneen ak ñoo xamante ne ñi ngi xëy di compte ñi ngi xool nu ñu jëlee alalu jàmbur mu leen di waxaat ngeen delloo seen xel ci suñu boroom xam ne alal jooju ak loo ko bëri la bëri le bien vrai que mën na la fajal yenn soxla yi mais am na loo xamante ne mi ngi ci yow te moom moo koy gindi te dangay sooraale sóoraale ni ëllëg da ngay ñibbi parce que fii kenn dëkk ñun ñëpp ay dem donc boo sóoraalee loolu rek xam ni ëllëg di nga ko taxaw layoo ko ci kanamu borom bi lu bëri loo xam ni yaa ngi koy def di nga ci teggiwaat sa tànk ndànk. alors bu ñu jógee ci point boobu ñu jàll ci beneen point boo xam te ne. cette fois-ci ça concerne les politiciens ñu gis tey le ministre Ali. ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon ñoom ñëpp tey ñu ngi prison loolu rek war na mën a jàngal ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci gouvernement yor nguur di ci jëf-jëf boo xamante ni nekkul lu baax xalaat leen ni ëllëg ndog-ndog mën na ñëw ngeen mujje fi ñett ñi mujje xalaat leen ni ëllëg tamit sunu borom mën na leen a jël te su ngeen demee di ngeen layoo lépp lu ngeen doon def ci àdduna bi te même bu ñu jëlul exemple bi nga xam ne moo am ci série bi parce que lii série la mais dans la vie réelle gis nañ fi ministre bu génn àdduna gis nañ fi président bu génn àdduna gis nañ fi ñu gën a kawe ñu génn àdduna kon ñun yëpp suñ xel war na mën a dem ni ëllëg dañ fi war a jóge te bàmmeel loo fa deful ci lu baax doo ko fa fekk loo fa deful ci lu bon it doo ko fa fekk jëf ji nga def ci àdduna moom moo la fay xaar te jamono ji ci toll daf ci bëri ci njiit yoo xamante ni si pour ñoom duñ mos a jóge fi ñu nekk ñoom sóoraale wuñ ni sax ëllëg dinañ wàcc wala sóoraale wuñ ëllëg dinañ génn àdduna a chaque instant ñu ngi utiliser seen doole di ko teg ci kaw nit ñi te xamuñu ne nit ñooñ ñuy néewal doole ñoom ñoo leen teg fi ñu nekk ñu leen di wax ni ngeen teel a delloo seen xel avant qu'il soit trop tard parce que àdduna dafa gudd tànk te kenn xamul lan mooy xew ëllëg nguur neex na trop mais day jeex benn nguur rek moo dul jeex muy suñu boroom. alors yéen ñi nga xamante ne yéen a féete kaw yor nguur ngeen yërëm population bi nga xam ne yéen leen jiit te xam te ni tey jii nii fi ngeen nekk ñoom ñu leen fa teg bañ leen fay teg nag am ci yéen yaakaar bëgg tey ngeen liggéeyal leen mais pas pour ngeen jógaat jël doole joo xam ne ñoom ñoo leen ko jox ngeen koy tourné waat contre ñoom di leen ci néewal doole alors tey lii moo nekkoon suñu vidéo bien vrai que série bi am na ay point yu bëri yoo xam ne mën nañ ci débattre mais dañ ci tànnoon quelques yi rek bëggoon ci waxtaan ak yéen di leen bàyyee kàddu ko di leen wax keneen koo xam te ne am nga ci xalaat rek te mu doon loo xam ne jàpp nga ni soo ko waxee ku ko déglu dina la mën a jariñ mën nga ñu ko envoyé par vocal ñu mën ko jàllale incha allah di dellu encore une fois di tuub di jégalu képp koo xam ne liñ fi wax laal na la wax ji nag lu fi jub ngeen xam ne ndimbali borom bi la lu fi dëng ngeen xam ne ci kiy wax la ndax nit matul di leen jox dig daja ci beneen vidéo incha allah